Sall mais nga teel a jóg incha allahu teel a fajaru ndax nag ger boo fay dem da ngay taxaw yor say arme waaye nga teel a fagaru teel fagaru bi du dara lu dul teel a fajaru dem voté ji balaa midi macha allah ñu ne ñi nga xamante ne ñoo ànd ak président Macky Sall yëpp muy candidat bi nga xamante moo gën ci candidat yi ah ñoom ñëpp dem mën a voté ji avant midi ñëpp pare ci li nga xam ne mooy bureau vote yi dootuñu sax tudd koo xamante ni wax dëgg yàlla man ngi fi voté ku dul moom rek lañ séq ak moom te gëm nañ ni moom ci boppam comme andi amul candidat yaakaar nañ ni moom dina jàppale ki nga xam mooy président mag saal pour mu am ndam ndax nag président ku ne xam na ni lii ñu gis muy liggéey fii ah kenn war ta mën a caaxaan ba doo ko voté non du ma ko door ndax sama càmmiñ la Ablaye monsieur le maire Ablaye Diop sama càmmiñ la du ma ko dóor te moom xam na ne bu ma gisee xam na ni du ma ko dóor waaw bëgg bëgguñu nag lu dul mu ñëw nag ñun bu ñu sañoon day bokk APR ndax nag jàmbaar la moom itamit waaye itamit bu ñu sañoon mu jàppale ki nga xam ne mooy le président Sall dañ koy taalal loxo te nañ ni moom ci boppam dina votel ki nga xam mooy président Macky Sall waaw ndax nag sa jàmm rek lañ séq ak moom waaye aussi lépp lu ñu nekk ma nga ca te lépp lu ñuy def rek loxoom dugg na ca muy réalisation président Macky Sall yi defe naa ne fii ci ginnaaw raay ku ne teg na ca bët te itamit ginnaaw raay defe naa ne ñoom ñëpp bu ñuy def porte à porte sax gestu nañ loolu xam nañ président lii mu def ci ginnaaw raay nit mësu ko fi def. dèjà APIX ku ko xool war ngaa xam ni wax dëgg yàlla lam fa def rek muy collège ah ak li nga xamante ni mooy li école dafa case des tout petits dafa espace boo xamante ni macha allah jeunes ba yëpp fa la ñu defee seen sport. kon defe naa ne loolu musul am ginnaaw raay dafee ay canalisation yoo xamante ni président rek moo mës a falu président Macky Sall def ko fi fii ci ginnaaw te defe naa ni ginnaaw ay nit ñu am jom ak ñu am bopp ñoo fi nekk ñu xool mukk mukk le président Macky Sall dem day sànnilaat keneen koo xam ne jarta sànnil te gëm nañ ni ñun président moom la ñu choisir te incha allah ginnaaw raay moom la choisir te moom la ñuy votel te incha allah bëgg nañ au premier tour mu gagné ko mais nag ku ne xam na ni dafa bëgg Pikine waaye Pikine dañ koo bëgg te incha allah bu du gisee Pikine dina fi gis loo xamante ni mosu koo gis ndax ñun moom la ñu choisir te incha allahu rabbi ak euh, ki nga xam ne mooy sama leader muy président Cissé Lo incha allah moom tam dina def forte mobilisation waaye fii di commune de Guinaw Rail Sud duñ ci des ginnaaw ak suñu coordonnateur Bakary Traoré ndax nag boo déggee bu may wax di tudd ki nga xamante ne mooy président Cissé Lo mën naa ni nag macha allah ci li nga xamante ne mooy parti bi ah bu ma fi toogee ba tey nag moom ma fi tey ma bokk ci mouvement horizon 2020 nëbbatuuma ci làkkatuuma ci muy koo xamante ni ku ma jàppale muy sama papa ku ma yëg moo tax tey bu ne day dugg ginnaaw raay nii rek laa mën a def pour mën koo teeru waaw ñu di ko xaar rek xanaa mu ñëw ndax nag moom nekkul lu dul di liggéey la président Macky Sall di ci def corésam waaye nag di ko def dooleem la ciy def saa yu def lu xaar président Macky Sall jox ko pour mu def moom mooy yëkkati li nga xamante ni mooy lem def ci muy li ma gën a neex ci moom moo di koo xamante ni bu génnee njabootam lay njëkk a génne ñu ànd ak moom di caravane ay soxnaam lay njëkk a ñu ànd ak moom di caravane ma teg ci sama bët gis li ko président Macky Sall jaral waaye li ko réew mi jaral waaw di ko ñaanal rek macha allah moom it li muy yóotu muy maire Dakar yàlla may ko ko ndax nag mérité na ko ndax liggéey na ko fi. que il y avait pas de l'entente mais maintenant on a eu ce que Guinaw Rail a toujours souhaité les hommes qu'il faut à la place qu'il faut des gens qui ont vraiment les mains qui sont clean vraiment des gens qui qui qui leur credo est la patrie avant le parti. Notre démarche est une démarche inclusive. Vous avez a le Parti Socialiste, il y a l'AFP, il, il, y a tous les mouvements. Ce qui symbolise aujourd'hui que Guinara est uni au sol d'un seul objectif, la réaction de président Macky Sall à travers une organisation solide, Benon Bokiyakar, que je représente, dont je suis le côté. J'invite euh, à euh, accompagner le président pour plusieurs raisons. Parce que Macky Sall est le seul leader qui n'a jamais insulté le président de la République et que Sonko il dit qu'il constitue l'antisystème et que Idrissa a traité Maître Abdoulaye Wade de sperme et de spermatozoïdes, l'histoire euh, se répète. Alors que Macky a toujours dit que euh, Macky Sall a toujours dit que Abdoulaye Wade est son père. Tout ce qu'il a appris, il a hérité de Abdoulaye Wade. Je pense que qu'aujourd'hui, la victoire de Macky c'est la victoire du père, de son père adoptif, le père Abdoulaye Wade. Je pense que euh, le PDS a intérêt, a intérêt le produit euh, de, la famille libérale. Je pense que ça sera un point de plus. Mais euh, je pense que des discussions, des de, proximités à travers les militants du PDS, en tout cas, nous rassurent sur le terrain. En tout cas, ils ont apprécié les actions du président Macky Sall. Et je pense que le PDS, à mon intime conviction, le PDS votera pour le président Macky Sall dans l'intérêt du Sénégal et de la famille libérale.